li baxna na mais ñemewuñ ko contesté nak parce que xam nga nit ñi xam nañ nit ñi li xew parce que xam nañ ne président limu def baxna mais comme nee nañ président ci président Macky Sall nañ wut luñ ko ñuulalé mais mënuñu ko mais kenn ñemewu ko contesté nak dañuy ñëw di wut ay faux fuyants nanga il faut arrêter de la politique li kenn du ko politiquer li c'est une affaire de tous c'est une affaire d'une nation donc ñëpp dañ ci wara ñëw japp ci wax ci wax ju rafet mais souvent pour nous, si nous wax ju rafet Macky Sall vous le dites pour le peuple vous le dites pour ces braves dames qui se sont battues pour tey avec ces filles. donc nous vous félicitons monsieur le ministre il ne faut pas répondre à cela parce que jaru ko il faut travailler avancer pour qu'on puisse avoir vraiment quand même un pays comme nous, comme ko mos a amee lu baax y wax manifestation yooyu loolu bis bu jotee dinañ ci ñoom dañuy fekk wax ju foo xam ne wax ba jotagul ñu nekk fa di wax le jour où on pourra en parler dinañ ci wax parce que j'ai dit il faut que les gens di accepter li ñuy def maa ngi dégg ay way diw professeur la diw nangam man mi nga xam ne journaliste la su ma demoon def sama tooxi doon ñu jàpp journaliste yi dinañ génn ñoom ñi taxaw génn nañ bàyyi Abdou Mbow il faut que les gens assument leur position même si tu es journaliste tu es nga am say position politique mais il faut les assumer mais de la ci société civile doit assumer ses positions, ça c'est un manque de courage